Heavy Waves.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 làmb ndakaaru doy na waar ab chauffeuru camion daal moo fa sàcc fanweer ak juróomi toni ceeb pëtë law yow mal xiyam fu ngi koy yenoo ma ne toll ci juróom-ñaari téeméeri saakuy ceeb laa la wax ba ko xayma ci xaalis toll na ci fukki million ak benn man yaa na ñi doon chargé ceeb bi mbir moomu nag nee ñu mu ngi xew booru cinq heures du matin ab camion daal di ñëw gaare chargé fanweer ak juróomi toni ceeb jëmale ko ci destination boo xam ne kenn xamul ci jamono yooyu nag ndekete société bi ñu doon sàkkee saaku ceeb yooyu dañoo recruter woon ay gardien ngir ñu surveiller stock ceeb yi ñu fa rënk foofa ca port bu commerce bu ndakaaru transporteur bi ñu mandate woon ngir mu transférer ceeb bi dal di yebal ab sofooram waaye sofoor bi na daal di lal ay palang palang yi mu lal mooy dafa jël camion ba waroon transporter ceeb ba dal di plaque bi def ca beneen faux plaque waaye ma ne a pexem yooyu yépp taxul sa waay rëcc de ndax boori cinq heures du matin ba mu ñëwee gaare camion bi ci la ko gardien yi daal di démasqué informé gendarmerie brigade bu port bu commerce bu ndakaaru ci la ñu ñëwee teg ko loxo dal di koy yóbbu ma ne sofoor boobu bi l'enquêteur nangu na tuuma yi ñu teg ci kawam yépp ma ne ko nag wàcc daanoo ci gën a gaaw waaye poor moom sàccang fay bëgg a doon baax moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona laa wax la xew ca Tuuba fa ñu naan 28 romb na doy war ab sëriñ daal moo fa duggoon ci ab pharmacie toonaam lu muy jënd bi mu génnee ci pharmacie bi ay samba booy daal di koy songu fekk boobu mu ngi wuyu téléphone ñu daal di fëgg sëriñ bi mbéj nangu téléphone bi yéeg yëkkati seen moto ne may waaye sëriñ bi bàyyiw ko ak ñoom ndax dafa taal otoom topp leen ko ci waaw góore waay ma ne sëriñ ba ak ñoom moo ñoom ni poursuite yi ngeen di gis ci film yi ba mujj mbëkk seen moto ñu daanu naka noonu ci la tegee loxo benn samba boy bi ka ca des moom ne may ci noonu la jëlee benn samba boy bi yóbbu ka ca commissariat bu ndaamaatu ba mujj naa démasqué beneen waa ji ñu ngi koy wër ma ne ko doo rëcc de bu ñëpp doon def ni sëriñ bi léegi sàcc jeex ci réew mi ak agressé moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a grave corona la wax la xew ci autoroute bu jam ñaajo romb na doy war ñetti tànki nit lañu fa gis waaw waaw waaw ana bopp yàgg yaram ya benn tànku nit bi ñu ngi ko gis ci autoroute bi fa jege ak centre international de conférence bi ñu duppee Abdou Diouf ñu takk ko ci ab mbuus yeneen ñaari tànk nit yi ak jas ay xaj ñoo leen sulli waay waay waay waay mim réew dese médical la nag wala ay sacrifice yàlla rek a xam waaye wubbi nañ ci ab lanket moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw korona la wax la xew ca Pikine doy na war ab xale bu jigéen bu am fukki at ak juróom-ñett daal la fa ab waay soppi woon transformé ko li ñu naan objet sexuel waa nee ñu nii dafa am xale bi sa dafa posté ci Instagram am ne mën naa faj bépp jigéen bu ñàkk ndawam ba mu jotaat ndawam bi ko xale bu jigéen bi gisee ci la ko dal di contacter waaw mu yéen xale bu jigéen bi ba mu contacter sa waay sa waay ne ko nag dinaa la delloo sa waaye ci kaw ngay vidéo say partie intime dal ma koy envoyé ay way samba naka noonu ci la ko xale bi dal di defee bi ko xale bi defee ba sa waay yor vidéo yi ci la ko tàmbalee santage di ko woo ci ay béréb dëkkee ko sakku di xale bi demee ba sonn nag ci la mujjee porte plainte ci la élément aroona bàyyi tegee piège en complicité ak xale bu jigéen bi dal di kamb waa ji ba mu ñëw ci ab béréb bi mu ñëwee bis yaakaar ne moo xale bi dañuy dem ca la ko police yi ne nip takkal ko ay lam ma ne ko waaw góore waay waaw góore waay waaye nag xale yi wax dëgg yàlla internet baa ngi leen di rey bàyyi leen loo leen gis ci internet bi gëm internet bi ay dóorkat ay sàcc ay yàqkat ñenn ci internet bi ñu leen di nax rek bu doonoon seen xibaaru